dalli nag jàmm mbokk internet yi Buzz seen actualité ñu daal koy doore nag li ñeel mbirum Ousmane Sonko mi nga xamante jamono ji mu ngi ci hôpital principal bu Ndakaaru avocat mile di Maître Ciré Clédor Ly daal di génnewaat ab communiqué di alerte ki nga xamante ni njiitu réew mi di Macky ci naka noonu tamit ñi nga xamante ñoo yore justice fii mu Sénégal ci bile communiqué di xamle nag moom leader bu Pastef mu mu ngi ci ci Pastef daal di nay doy waar lool mu daal naka noonu tamit di wax ne nag seen client moomee mu ngay waaja am nga xamante ni mooy paralysie ci wetu gauche tax nag moom mi lee nag di sàkku jamono ji ñu daal libéré ki nga xamante ni mooy leader bu Pastef ci nu mu gën a ndax nag boo moytuwul dina àgg foo xam ne nag ab pàcc dootu si mën a dara dara ngir nag mën a dellu ci ni mu meloon ba tax nag moom mi lee di maître Ciré Clédor Ly mu ngi koy daal di xamal kii di njiitu réew mi di Macky Sall ci nag noonu tamit kii di doyen des juges d'instruction mi nga xamante ni nag moo joxe woon ab mandat de dépôt ngir rek ñu daal di teg Ousmane Sonko loxo ci nag tamit mu ngi koy daal di xamal autorité yi ci nag noonu nag jamono ji moom maître Ciré Clédor Ly mu daal di xamle nag mu ngay daal di sàkku ci ki nga xamante ni mooy njiitu réew mi di Macky Sall mu daal di tekki ndombal tànk ministre de la justice di Ismaïla Madior Fall mi nga xam ne rek dafa daal di xam ne ni jamono ji amula benn xarañte fa ci wàllum yoon ñu daal di koy remplacer daal di koy jox nit koo xam ne rek daal dinay maîtriser li ñeel wàllum yoon waaye tamit lépp lu jëm ci wàllum ak ak fu doomu aadama ba tax nag ci naka nooy nag mu ngay daal di exiger li nga xamante ni mooy libération immédiate seeni client moomee di Ousmane Sonko naka noonu sax mu ngay daal di wax ne donte mu ngay daal di sàkku waaye tamit mu ngay daal di alerter rek ñu daal di libérer kii di leader bu Pastef ji wér-gu-yaramam dañ na toll rek foo xamante ni jamono ji moom leader bu Pastef dañ ko war a bàyyi rek mu daal di ñibbi këram